السلام عليكم واو فان جايسار واو لي ورال جتاي بي كاسك دا فا نيك لو رار لو خامني خالي خاماتو سي جوسان تا دانيو ورا خام سي جوسان دا دان دان ديف بو ني دوغالي خالي نيغو غور دافال لين لال balaa ñuy simmiñu ñu kasagal leen pour ñu xam seen aada ak seen cosaan léegi nag loolu dafa xewi amatul man dama ko daan def bi mooy sama quatrième édition mooy xarafal xale yi mais ren moom man maa ne woon naa def tout pour mën a kasagal xale yi ñii ñu mën a xam seen cosaan ak seen aada ndax xale yi léegi koo wax affaire kasak mu ne la luy kasak kon nag war nañuy kasagal xale yi ñuy xam seen cosaan di xam seen aada bu dul loolu kasag day fay. waaw ah. waaw association dooleel jigéen ñoom dañoo nekk ay jigéen yu am Pastef takku àndoo nekk benn di dajale li ñu am association dooleel jigéen dañoo nekk ay jigéen ñu am fulla am fayda takkoo nekk benn di dajale seen astuut di ko denc pour di at bu jot ñu dajale téeméeri xale wala ñetti téeméeri xale

ñun ñuy dajale suñu as di dajale xale yi di leen ko defal di leen pansement ñooy def suivi bi ba ñu wér di leen may ay siro ñuy naan association dooleel jigéen dinañu dem ci école yi di def ay set setal ci commune Ndiarème dañuy dem ci école yi bu ecole di bëgg a tijji di def organiser ay set setal di organiser di dajale xale yi nga xam ne seen waajur yi bëgg nañ leen xarafal waaw d'accord di dajale xale yi nga xam ne seen waajur dañoo bëgg ñu xarafal te amuñu doole ñu di leen dajale di leen xarafal di toll ci trois 300 xale ñu di leen koy defal di leen defal suivi bi dañ leen di pansement ba ñu wér yaa ngi dégg chaque semaine ñu woo leen ñu pansement leen toppatoo leen ba ñu wér ak di leen woo di leen nemmee ku xam ci lu ñu nekk di leen may ay garab ñuy naan ba xale yëpp wér macha allah loolu la ñuy def at bu jot boole ci dañuy dem ci école yi di def set setal loolu la association bi di def amaan na GIE ci biir GIE bi ci biir ñu ngi def transformation céréale locale lépp lu ñuy bay dañ koy transformer dinañu cuub dinañu defar jus dinañu defar saabu ndax GIE bi ay groupe yu sous groupe lañ ko def yoo xamante ni dañuy liggéey su groupe bu nekk dañu am lu ñuy liggéey ñii dañuy cuub ñii di def céréale bi ñii di def saabu ñii di def jus ñii di def euh, euh, pâtisserie kon groupe bu nekk am nga war a def groupe bu nekk am na njiit ci biir loolu association bi nag ñuy dajale lu ñu am di ci jàppale ñi nga xamante ne amuñu doole ndax ñu ci sunu biir sunu kees gi ñu yore di ko natt àllarba bu jot ku ci am sa ordonnance dinañ la jàppale jëndal la ko ku ci am sa problème mu facture courant dinañ la jàppale jox la nga dem fay sa courant ba heure boo amee nga ñëw fay ca na nga koy fayee du la sonal ku am coupure ndox dinañu la jàppale nga ñëw ñu jox la ci nga dem fay sa coupure ndox ba heure boo amee nga ñëw fay ci ni nga ko mën a fayee ñun daal ay jigéen ñu nekk benn lañu di lancer appel bépp autorité boo xamante ni war nga ñoo jàppale nga ñëw jàppale ñu te yàlla rek tax ndax ñoo ngi njaareem limaamu laay faat Ndiaye Sarr mooy présidente association bi mooy présidente GIE bi muy dooleel jigéen ñu dëkk njaareem limaamu laay nag amuñu doole waaye lu ñu am as tuut ñu ngi koy dajale di ko jàppale néew gi doole yi ak ñun ci sunu biir li ñu jàppalante ci sunu biir ñun ñu bokk ci association bi loolu Bécaye mooy suñu taxawaay di sant nag waa Géejawaay info macha allah seen taxawaay rafet na ndax yéen a ngi liggéey liggéey bu rafet waaw ndax lépp lu ñu fi def léegi yéen a koy jàllale ñëpp di ko gis te loolu amu fi woon kon ñu leen ciy sant bu baax waaw. waaw di sant nag ñi ma àndal ci association bi di góor di jigéen di mag di ndaw maa sant ñëpp di sant waa dëkk bi ñëpp di sant euh, xale yi nga xam ne damaa xarafal seeni doom euh, parents yi ma xarafal seeni doom maa ngi leen di sant ñoom ñëpp ndax gàddu nañ seeni doom indil ma. bu soobee yàlla bu déwénee bu ma ko defaatee du ma bàyyi benn njulli mu ñibbi lan laa koy def ba keroog ñuy simi kenn du génn incha allahu rabbi fas naa ko yéene buñ ca yàlla yóbbooteeg jàmm lan laa koy def ba juli yu wér ku nekk yóbbu sa doom maa ngi sant ñëpp di sant ñëpp di sant ñi ma di sant sama waa koñ di samay dëkkandoo di ñëpp maa ngi sant ñëpp waaw di sant ñëpp maa ngi sant ñëpp bàyyiwuma kenn di sant waa waay info bu baax a baax a baax ndax te léegi lu may liggéey bu soobee yàlla di ngeen ci bokk ndax formation yi ñu defal jigéen ñi ci maison de la femme bëgg naa ngeen di ko fekkee di ko filme ñuy xam li ñuy liggéey lan la ndax association bi dañuy liggéey tëduñu di nelaw lool daal laa amoon ci lu may wax wasalaam di sant ñëpp.